jërëjëf mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média di leen nuyu saa su fi leen tàmm di leen nuyu di leen toppal lépp luy làmb ak lépp luy actualité te bokk ci réew mi dañ koy jëli jox ko ñu ñuy suivre dañuy bàyyi xel saa su di wax ngeen wéy di abonné waaye di bës notification bi ngeen di mën di xaar vidéo di wàcc en temps réel su ko defee ngeen di ko mën a am saasuna te ne nag maa ngi fi nga xamante ne bi mooy euh, Dangu ah biir Tëngéej seet si le muy doomu Dangu ndax comme ni ñu koy waxee rek événement dañ koy topp avant pendant et après dañ koy topp jox ko ñu ñuy suivre dañuy bàyyi xel ku ne xam ne ne démb diggante ak euh, Gris 2 mi ngi woon foofee ca arène nationale yi moo woon ak dimanche le 26 mai yàlla dogal nag ki nga xam ne mooy Gris am ndam ci kaw doomu dàngu ñi ngi ki nga xam rek mooy doomu dàngu dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñu woyal waxtaan bi waaye di nuyu bu baax a baax ñi nga xam te ñoom lañ fekk ci salle bi ku ci mel suñu jigéen bi nga xam te ne bii moom promotrice la nekk ci làmb ji di ci bay waaram waaye sunu grand yi am tam ñu ngi fi toog ñoom maar ak ñëpp daal dangu maa ngi lay bu baax a baax di la siyaar Thierno onze billah bismillah inna wal yàlla inna bi ñu sant yàlla julli sang sang yi di sant suñuy waajur bu baax a baax di sant àdduna ñëpp vraiment Thierno ñu ngi sant àdduna ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di sant waa Tëngéej yëpp bàyyiwuñu benn quartier ñu ngi sant waa yëpp di sant mbokk yi di sant suma staff ñëpp di sant mbëru yëpp di sante comme ni ma koy ya, ya, waxee waat rek Thier ya. Tëngéej aw ma seen fay. ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax gis nañ taxawaay bi. da nga jógee ci combat bu am solo ci sa biir carrière muy sa digente ak ah, Gris 2 mais lu jiitu loolu dañu gis combat bi bu mu taxawee enjeu bi xawoon na bëri yombul won benn côté ci sa diggante ak sa adversaire lan la won adversaire bi la won wala doomu daanga dafa am lu mu a wone. waaw mais làmb la won rek comme làmb dafa am ay phase comme ni ñu koy waxee rek ñun làmb noonu lañ ko làmb dafa am ay phase moment bu nek ak li nga wara def so waree wax da ngay wax so waree seral seral so waree yëngal yëngal étape yoy la won rek ah. avant tout aussi ñu ngi féliciter suñu adversaire bu baaxa baax diko ñaanal ndam li yalla nako jik do mu Dangu li ñëpp di laaj moy lan moko jël lo grido lamb lamb moñu moñu bolé xam nga tay ji comme niñ koy waxee rek moi je pense que bi moy suma 22e combat hein té té yàgg nañ mako proposer comme adversaire ma su masuma dem ci saison te bokkul ci cinq adversaires yi nga xam ne dañ ma koy proposé te comme ni ñu koy waxee rek gars yi promoteurs ay amateurs lañ xam nañ làmb yi jaadu ak yi jaaduwul te làmb moom bu ñu la proposé ay adversaire mu am adversaire boo xam ne dafay ñëw souvent rek dafay bokk say adversaire eh, loolu moo tax ñu jël ko. ñu bëri ne est-ce que tey Gris 2 bokkoon na ci euh, adversaire ki nga xam ne mooy doomu dàngu est-ce que tey doomu dàngu bu jëlee Gris 2 amul lu mu ko mën a yàqal ci yoonam. waaw non ñun bokkuñu ci mbër yi nga xam ne dañ dugg ci làmb pour xool facilité fii la ñuy jaar wala jaaruñu fii ñun bu ñu duggee ci làmb li ñu njëkk a jàpp mooy ileeru gumba lañ. waaw comme ni ñu koy xam nga boo nekkee ci làmb amoo ci ndijaay amoo ci pàpp amoo ci amoo ci yaay xam nga nga nekk mbër moo xam ne aussi tamit yomboo bëreel wala tey ji adversaire yi lay gis pour bëreek yow bariwul doo am choix si yenn adversaires yi da ngay moo tax ñun ñu sax si entrainement gëm ne làmb ji même bu dul Gris sax keneen ku dul Gris 2 sax bu nekkee suñu adversaire potentiel rek bu ñu waree jëflante dañuy dañuy jëflante quoi. bi ko jëlee wàccaay bi amoon na changement par rapport ak yeneen combat yi nga doon préparé man li ma gëm rek mooy lenn quoi si làmb lañ nekk te dañuy màgg te li ñu nekk li ci kanam moo gën a metti fuuf li suñu ginnaaw donc man saay bu ma jëlee combat damay yokk rek waaw. tey bi nga ko jëlee euh, nekk ci wàccaay bi nekk ci li nga war a nekk sa diggante ak Gris 2 euh, yàlla def face à face ñu gis saa bu doon dajee day sab sab règlement de compte la woon wala am loo bëggoon wane parce que bu ñu doon dégg doomu daanga ci communication dafa mel ni que tey ki muy bëral da ko fi war a faxas rek jële ko fi. non du woon règlement de compte ma Gris 2 mënuñu am réglement de compte te làmb yëpp man aw ma si ak kenn règlement de compte dañu fay pour ñu jëflante aussi donc combat jeexal na wax ji quoi donc li ñu war a def rek la ñu def. mooy dañu ñëw signature ku si nekk def li nga war a def wax li nga war a wax loolu la woon rek quoi mais mënuñu am règlement de compte. donc mhm. combat bi am na ci déception wala. waaw non dañuy sant yàlla. dañuy sant yàlla avant tout quoi parce que comme ni ñu koy waxee rek ñun bu ñu saay bu ñu jëlee combat rek dañu gis ne lii mën nañ ci dara donc nag nit boo duggee ci dara nga jàpp ne lii mën nga ci dara nga dem ba à la fin mu échoué au fond de toi da ngay am déception mais nag bu weesoo loolu yëpp aussi. ay jullit lañ ay sportif lañ dañuy dañuy sant yàlla bu baax rek. tey bi ñëwee ci biir làmb ji ñu gis doomu dàngu ni mu dugg si si biir làmb gën na dugg ci biir làmb confiance bi xadar bi lan la woon. non man noonu laa mos a duggee ci biir làmb nag man mosuma dem ci làmb di di di di di am xel ñaar ci lii wala lee non man saay bu may dem ci làmb damay jàpp ne li may uti lépp lu mu jaar pour ma indi ko rek dama koy def te li ñu war a def rek yëpp def nañ ko waaw sant yàlla daal. bi ñëwee ci biir géew bi arbitre siffle est-ce que mën nga ma ñëwaatal ci combat bi naka nga bëri ak Gris 2 ba perte sa combat waaw mooy comme niñ koy waxee rek adversaire la boo xam ne ñëpp gis nañ ne bon moo ma gën a moo ma gën a luur quoi donc dafa yenn maana bi ñu ñëwee ci géew bi tax na def nañ round d'observation man liñ ma digaloon mooy aussi comme li ma def rek ma def ay déplacement mu attaqué dóor ma reculer xam nga taxawaat ma dóor ko di ko dóor gauche droite si la par si lañu amee accrochage ma jàpp ngemba gi bon après loo fa xew xew fa ah. ban erreur def ba perte bi. waaw erreur bi ma def ba perte combat bi bokk na si comme ni ñu koy wexee rek bon boo xoolee moment moom bi mu may kal boobu man maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi siggi maa ngi siggi ñaareel bi aussi boo xoolee loo sam moom moo ngi ko indi sama côté droite te sama pied boobu laa déplacé. donc moom moo ngi chaîne sama pied droite quoi eh, waaw moom moo ngi chaîne sama côté droite et c'est normal parce que moom moo ma sut quoi moo ma moo ma gën a njool eh, erreur boobu laa ci def quoi. léegi ñoo déggee ñeneen ñi euh, Gris 2 dafa ëpp doole doomu daangu ñaar yoon. waaw non comme li may wax rek làmb moom yooyu mënul ñàkk ñun comme li may rek làmb moom boo daanee dañ naan yaa man soo daanoo ñu nekkee moo la ëpp doole quoi mais adversaire bi ma doon jëflanteel. moom xam na lu nekk ci man ak lu nekkul ci man quoi parce que bi ñu jëflantee ci biir géew bi ku si nekk sentir nga sa morom. tey ba tey bëri dañ ne dàngu boo fatee gos bi mën na am problème ci biir bëre bi est tamit nekkul sa adversaire tamit dafa jàngalul ci yow avant muy ñëw yow ci biir làmb ji. waaw moo xanaa xamoo man nit ñi ñooy wax nii rek man du ma sax góose. waaw mais say xeex yu ci bëri ci gos ngay xeexee. parce que pied droite laay jiital boo jiyee pied droite sa main fort dafa war a nekk may bi si ginnaaw yaa ngi dégg mais man aw ma aw ma aw ma aw boobu aw ma parce que boo xoolee si combat bi sax am na benn moment man sama ñaari loxo yëpp dama ko dama ko dama ko jàpp eh, dama ko jàpp dañ doon bëre comme niñ koy waxee rek moom liñ ko conseillé la la def peut-être man mi daanu erreur laa def moo tax ma daanu quoi eh, mais man awma ay problème mu gauche wala wala wala droite quoi. Uh-huh. donc wéetul ci combat par rapport ak ni ñu gisee Gris 2 ni ko waa Fass encadré indi ko ku ci mel ñoom Gris 2 ñoom Gris Bordeaux Serigne Ndiaye Lagros ñëpp ñëw par rapport ak tey euh, cuumakaayu. doomu dàngu amul tuti wet bu feñ fofu la. non ban wet man suma ma wet na sax lolu kon man limay may incarné nekkatu fa quoi parce que man bima dalé dalee ba légui bima dalé dalee ba légui 22 combat lima indi la ma sa indi Lima indi ni la ma sa indi man bima tambalé tàmbalee bëre daw ma écrit face daw ma écrit lamsar daw ma écrit Ikiri daw ma écrit fen écrit tengej la tok tey jii yaakaar na ne écrit Songane Gueye ku rek man bokk naa si ñi nga xam dañ ci participer lutax ñu ñu dégg ko. donc bu ñu doon am ay xel ñaar ne bu ñu demee dañuy wéet non ñun ñu ñu àndal peut-être monde làmb moo leen xamul. mais ay euh, ku ci mel ay ñoom euh, bari na mbër yu nekk Tëngéej. comme kan ay ama neex et cetera yooyu. ñoom ñëpp ñoo woon. xam nga tey ji comme li rek man gëwma ay ay ay ay lu feeñ ci télé yooyu man gëwma yooyu man li ma gëm xam nga mooy lan yow ñu ngay wax nii yëpp amul benn mbër boo mën a du tudd Tëngéej ban ñi zone bi te préparé wu ñu combat bi mbër ni non non non cest à ëmb indi bi amu si amu si amu si solo pour man mbër ni nga ko mën a jàppalee mooy muy préparer combat soxla la nga bàyyi ci lépp nekk ak moom te ñun di dans koor gi yëpp man ama ne Quentin Ronaldo Thiaka Faye xam nga góor gi étudiant bu ma limee rek dama dul matal gàmmu géy xam nga maanaam zone mbër bu mbër booy dégg zone bi rek ñun ñoo préparé ndoo suñuy combat ñun ñëpp quoi yooyu bés ba man maay dugg ci géew bi yàlla defoon aussi ñu am combat bu ñu amoon Thiès aussi Youssou Ndour doon bëri Thiès xam nga te lu la si mën te wax aussi ñoom ama ne Gamou Gueye dafa am écurie bu ñu bokk muy léw gi te Youssou Ndour foofu la bokk même bu ñu pare woon aussi pour ñëw si ñun sax aussi ñun duñ ko duñ ko nangu quoi waaw duñ ko nangu mais wéeruñu si benn yoon comme li wax rek Gris Bordeaux lañ xam mais ñoom bu ñu amee Gris Bordeaux ñun am nañ su moom ak Abdou Aziz Malick Baye Ma Ndiaye ak keneen ak keneen te ñooñu ay mbër lañu woon yàlla nag mooy dogal ku nekk ak fi nga war a toll mais wéetuñu si benn côté waaw loolu moom ay no man amul benn combat bu may bëri ji te pareewu ma si lépp waaw wéetuñu si benn côté wax dëgg wala agim manquéwul dara billaahi doomu daangu tey lan lay wax waa Tëngéej ndax dañuy gis démb macha allah li nga def stade bi taaru gi mu taaru moom la ñëpp di waxtaanee tey nga ñëw perte sa combat waaw mais sant ak ngërëm dañ leen sant bu baax a baax te xam ne amuñu seen fay parce que ñun du comme li ma la lay rek defaluñu leen wala wanuñu leen loo xam ne tey jii moo tax démb tëngéej gépp bàyyi lépp lu ñu jàpp toppañu amuñu seen fay même bu ñu amoon ndam sax wallahi azim amuñu seen fay te comme li ma may wax rek man li ma gëm ci làmb mooy mbër day màgg ci ci côté bépp ci côté bëre ci côté entraînement ci côté doole ci côté mobilisation ci côté staff ci côté bépp te ñun démb loolu la ñu confirmer rek la loolu benn pas rek boo xam ne tey jii dafa am suñu carrière te yeneen yi di ñëw aussi incha allah su yàlla defee jàmm mooy raw fuuf fuuf fuuf mais comme li may rek waa Tëngéej ñun amuñu seen fay xam nañ li ñu war en tout cas comme li may rek bor la boo xam ne tey jii man dama ko war a fay Tëngéej. yee bor la boo xam ne ak lépp lu ci mante am rek dama ko war a fay Tëngéej bari ñi yéen maanaam mbokku lépp yëpp ak ah, démb képp ku doon supporté doomu daangu parce que ñun bu ñu daanoo du ñun du ñun mooy tax affaire bi duñu metti mais da ngay préparer combat nga gis nit ñi taxawaay bi ñuy am ci yow. mu nekk taxawaay boo xam ne man damay dem ba sax yërëm leen ci côté bépp nag muy sa staff muy say xarit yi nga xam ne tey jii làmb boolewu leen muy say am di jàmm mooy ki nga xam ne yow xamoo ko sax maanaam mu leeral la démb maanaam damay sigg xool tribune bi nga gis kenn koo xam ne wala si tey fi nga taxaw su bakken bu joxe bakken tey doon tax nga am ndam da nga yóbbu ndam parce que jaraloon na ci ñun ñi àndoon jaraloon na ku si nekk. démb ndam li jaraloon li ku ne. mais comme ni ñu koy waxee rek ñun ñooy principal responsable ci defet bi parce que ñun ñoo doon bëre ñoo am erreur mais ñoom taxawaay bi ñu am ci ñun macha allah xam nga Rufisque fair play nawetaan am nañ ci taxawaay bu bu bu bu bu jéggi dayoo. TFC aussi ñu ngi leen di félicité ci championnat du Sénégal ñu ngi leen di félicité bu baax a baax di leen ñaanal aussi coupe du Sénégal bi ñu jël ko mais ñoom aussi am nañ ci taxawaay bu bu bu jéggi dayoo. di ñaanal aussi Azelan ñu yéeg première division comme ni ñu koy waxee rek club bu Tëngéej ji fi nekk yëpp dañ ci jiital Azel ak TFC rek xam nga mais comme ni mu koy waxee am nañ ci taxawaay boo xam ne tey jii macha allah tey ji comme ni ñu koy waxee rek man damay tëdd sax ne bu ñu mënoon soppi doomu dàngo bi def ko doomu Tëngéej sax dañ ko koy def parce que mbir mi moo toll foofu mais ni koy waxee rek yee yàgg na ko dépassé mhm. mais lu tax doomu dàngo bi rek dama koy expliquer waat rek yi. ñun bi ñuy génne di wax doomu dàngu dafa am ay mbër yu fi nekkoon aussi yu tuddoon doomu tëngéej mm-hmm. loolu moo waroon lool mais doomu dàngu bi doomu tëngéej la yooyu mais daal comme ni nga waxee rek mm-hmm. yi nekk tëngéej du benn ASC boo xam ne dama koy dama koy dama koy bàyyi awma benn ASC ñu ngi sant ak ASC yëpp yëpp gis nañ seen taxawaay ci bés bi gis nañ ñaan yi ñun ñoo leen ameel bor mm-hmm. te incha allah population tëngéej bi amuñu lu ñu sëgg dañuy jug nekkaat si li ñu nekkoon yokku cere lu ñeex di ñaan suñu borom mayal ñu combat bu gën suñu borom defal ñu si ndam. ëllëgu doomu daangu ginnaaw jógee na ci diggante ma Gris 2 perte combat am ëllëgu doomu daangu ci biir làmb kan la jàpp ne mooy prochain adversaire am. waaw comme ni mu koy waxee rek xam nga tey jii dafay très tôt sax ñuy ciblé naan kii la ñu war a bëreel wala kii la ñu war a bëreel dafa am si lu ñu jógee te ñun nu ñuy doxee mooy suñu amee ci lu ñu dem am ci lu ñu jógee que mu nekk résultat bu positif wala bu négatif dañuy toog ak ñu ñu wër ñu am ci jàngat ñu gis ne lii moo dox lii moo doxul Cheikh bu ñu réparé erreur yi ba pare nag suñu staff gis nañ ne tey jii kii adversaire bii la ñu war a bëreel ñun amuñu problème yooyu quoi yaakaar nañ ne bokk nañ ci làmb mbër yi nga xam ne sooy soo ñuy wax pour combat dañ la naan demal waxal adversaire bi ba pare amul benn pour sama combat bu sa taxaw bu def deux jours wala trois jours bu nekkee adversaire boo xam ne jaadu na rek lépp lu mu laaj lu ne dañ koy def comme ni wax rek amul benn promoteur si sit laa wexee amul benn promoteur bu moo sa tëgg ba pare après ma du ma mën a siggi la parce que lépp lu ñu wax ak yow dañ koy def. sa combat mag sa combat ak sa bàll jàppal nañ ko mu yàqu moment bi adversaire lay wër ndax ba léegi dàngu bëgg na combat ba wala. waaw comme mooy li ma la wax rek li ma la wax nii rek laa lay wax ñun ci làmb lañ ne. yaa ngi dégg man démb làmb yëpp ma faral mbër yeeg bu ma limee sax du ma dul du ma damay damay damay damay juum man ñëpp mu faral yàlla seede na loolu mais li ma la wax nii rek laa lay wax. képp koo xam ne làmb gis nañ ni kii adversaire doomu daangu la rek suñu staff pare rek pare nañ pour pour pour pour pour bëre làmb jooju. yee ñun amuñu ay ay. ñu ne ay mbokk dafay feeñ la waaw non bañ a bëri. loolu ay ay ay ay wax la rek làmb moom boo fi xoolee ñëpp ay mbokk lañ. mais tey jii xam nga comme ni ñu koy waxee suñu combat dafa taxawoon aussi. ñu ñu ñu ñu bëre woon. mu nekk gentleman man aussi pareil donc bu ñu làmb boolewaatee comme li may wax rek. man jaamu la koy ñaanal mom jaamu la may ñaanal. amna avance bu mu téewon bu mu yoron ci digënté mak soxu mu juna yaqku ndax paré nga pour jël avance bobu doomu dang damay ah. bëgg fukki ci ben adversaire. non non fi nekk ni xam nga wa non xam nga xel yenul mana nga bëre demba daanu tay naan ki lay bërel wala ki cest dafa am lu nekk si ñun comme limu la rek dañu juggé ci dara mu échec ci côté sportif yi ndam li ñu ron am suñu borom xañ ya ko yaa dégg. donc ci côté boobu dañu war a toog ñu xoolaat loolu rek tey ji dafay très tôt non déggoo li ma la dafay très bu amoon ndam dañuy toog jàngat xam nga li ma la dafay très tôt ñu naan fii la ñu jëm wala jëmuñu fii quoi mais xam nañ daal ci làmb bépp adversaire boo xam ne nit ñi nee nañ lii potentiel adversaire doomu daangu la ñun amuñu droit pour rejeter ko amuñu amuñu yooyu amuñu calcul boobu quoi. solo balaa ma jeexal sa diggante ak sa wéjur bu jigéen lan la say diggante ak sa yaay booy. suma yaay man ma yaay suma xarit la. man dafa yàlla dafa def suma papa dafa teel a wàññeeku man suma yaay laa xam ci ci lépp suma xarit la yàlla xam na ko bu dul làmba nii sax dañuy tooñante te xam nga comme ni ñu koy rek man xam naa ne man maay doomam ni dafay am ay doom yu bari yooyu day am mais man sama yaay man maay man maay doomam loolu nag yàlla moo koy def man mosuma génn sumay loxo yaay donc nag comme ni ñu rek dañ koy ñaanal mu gudd fan ak wér di ko ñaanal aussi képp ku fi waajuram des mais xam naa ne daal suma yaay man suma suma xarit la dama ñëw mu ne sant na la gërëm na la du nga kër gu baax daa ko fay dugal mu nekk si condition yu baax mu ne doo ragal dara bu ragal dara waaw mais ñun comme leen rek ñun bébét ñu am suñu waajur yëpp defaguñ si lu toll nii yàlla seede na loolu muy suñu waajur muy suñu am di jàmm muy suñu xarit muy si képp ku ñu wër parce que comme man li ma gëm rek mooy àdduna moom nit njariñ man loolu laa gëm du doomu dàngu rek la war a di defal non man doxee ma noonu quoi man suma àdduna ni may doxee mooy ki may defal dama ko war a defal dégg te noonu la noonu la demee du suma yaay rek doom moom lépp lu mu defal yaayam rek wareef la mais ko xam ni ma koy waxee rek man àdduna ni ma si àndee nit mooy vice versa gënuma la gënoo ma man bëgguma sax nit di sonn si man te man du ma sonn si yow man man doxee ma noonu quoi kii di sonn si yow aussi danga nga war di waaw da nga war di sonn si moom quoi. Hmm. loo bëggoon wax sa laajuma la ko. waaw mais comme ni ñu koy waxee rek dañuy sant Tëngéej ñoom ñëpp amuñu xàjjeex seen ci kenn ah. ñëpp lañuy sant Tëngéej di gërëm ñëpp di leen wax rek ne ñun ñoo leen ameel bor te lépp lu mu laaj lu nekk pour bési démb bi ñu amaat bés bu ko daax ñu indil leen ndam incha allah Tëngéej dinañ ko dinañ ko def quoi mais ñu ngi sant ñëpp. du ñàkk rek ñu am ci ay nit yoo xam dañ leen lim ku si mel ni monsieur le maire de la ville muy xam nga monsieur Omar Cissé jàpp na ci affaire bu baax baax di ko sant ko gërëm aussi monsieur le maire de Rufisque Nord monsieur Assane Kassé aussi gis nañ taxawaay bi yëpp vraiment bu doon ndam rek ñaan kon démb dañ koy am quoi waaw mais ñu ngi leen di sant di leen gërëm ku si mel ni ñaambay solo étude paka Boy xam nga international Abdallah Ndour suma père Ousmane Diaye mention spéciale président ASC Lébu gi mam Boukari ak ASC Lébu gi yep yep yep yep yep suma fante club jël nuyoo bi rek tek ci loxo ndol Diagne Papa Iba Amadou Wës Thiandoum Ahmed gay Paate ndjay suma staff Baye Modou Mama sek ayta Diagne Diagne Ciss xam nga ndoy Ndoye Boubacar nya Mar ndjay koku non dafa am ñi ñoo xamne li leen di boole sax du lamb yàlla xam na ko li ñuy boole ñu nekkul làmb mbir la moo xam ne tey jii man maa ay woon rek ñu taxaw ma ñoom ëllëg aussi noonu ñun noonu la ñu àndee quoi yee Sambay Aline Badara Cissé xam nga yee bu ñu limee rek maanaam mooy mooy loolu suñu écurie aussi comme ni ma rek Aziz Malick yàlla xam na ne su ma li may ut su ma ko amul su ma xel si moom lay njëkk a dem Aziz parce que dafay sonn si bés bi comme li may wax rek ndam démb bu doon bakken mu jaay bakkenam ndax mu am ndam xam nga nit moom bu amee taxawaay boobu ci amul dara loo ko mën a fayee ci àdduna te ñoo ñooñu yar teetañu Papa Gueye der gi man leer na ma tey du génne waaw der gi Pisco Iba xam nga sama grand yi ñoom mbay Seck aada góor maanaam ñëpp daal àdduna ñëpp ñu ngi sant ñëpp Omar Faye aussi xam nga rijaal ñu koy sant Gatouzo aussi xam nga am na si taxawaay bu bu bu bu mucc ayib xam nga eh, Djib Sarr Aria moom tamit mention spéciale ak ah, Mbaye Ndiaye aussi Elise waaw président commission sportive lébu gi waaw. ñu ngi bëggee ñëpp ak ASC yi encore une fois parce que ASC yi nekk Tëngéej dañ ci am taxawaay bu mucc ayib di ko dalee asek ba cëw leen jàpp këri kaw xam nga daar Rahman déggoo sant yàlla. dàngu gi nga xam ne ASC Lebougui gi fii la ñu dëkk Dar Salaam suma kër maam dàng sud ba cokkul aussi awma seen fay xam nga di gërëm aussi profité di si gërëm Formane Gueye aussi parce que combat bi aussi taxawe ne ci ñu ñu ne taxawe ne ci ne mais daal comme ni ngay rek ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di féliciter adversaire bi di ko ñaanal ndam li jikko parce que aussi gentleman la làmb boo xam ne waxanta na li ñu war a waxante yëpp te terewul aussi ku si nekk fi nga war a yem yem nga fa yee après ñu ngi sant yàlla xam nañ li ñu war ñun xam nañ ko te dinañ ci nekkaat waa salle def sport aussi macha allah ah. waa mais daal ñu ngi sant encore ñëpp di gërëm ñëpp jaajëf ñu bëggee waa dangu bu baax a baax ndax su may goro fii la ñuy yeewoo kon di wax jàmm xewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal jërë ngeen jëf ba beneen yoon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 ji ETDR ndax nag moo fi ne